munti nekk si biir Sénégal ñépp ñoo leen di teewlu ah Tawfekh mbokk yi mooy assurer seen visibilité Tawfekh production le leader dans son domaine. ah lii ñu waaye ni ñu baaxoo woon di defee jotaay yu mel nii mooy tari yaag tàccu yaag xumbal ya mel na ni wax dëgg yàlla daana tax boo demee ci yenn barab yi di am jafe-jafe ndax doo mën a ñàkk wuy ji waaye itam da ngay wuy ji ba noppi mu gis fa yu xaw a doy kiimaan waaye ku ne gis na ne e, soppi yu mel nii lu ci am am njariñ la li xaw a gën a yéeme ci mbir mi mooy bi may dugg si dama yem ci ñuy wax ci mbirum zakat mooy asaka bi ma sëñ Mor ñaanee pour ma toog dégluwaat jotaay bi ñu tàmbale ci waqf ma ne xam naa mbiri sunu borom daal yéeme na ndax yàlla dogal na doctorat bi ma doon def ci wàllu économie iqtisaad islami ci ci lo ñaar yooyu laa ko bind maanaam zakat ak waqfu laa wax nan la mën a euh, jàppalee économique bi ak soci ak société bi ci loolu laa ko bindoon ma ne xam naa kon xëy na sëñ Mor moom li tax mu ne ma toogal daa bëggoon ma dégg waqf waaye bi ma toogee it déggaat naa leneen yoo am am solo kon mooy wane ne euh, bind yiñ fi joxe dafa ëmb lépp farata yi jàngale na ko waaye jàngale na yeneen yi nga xam ne itam dafa am solo lool ci islaam te ñenn ñi di ko sàggane surtout nag waqf dafa am solo lool te daanaka déggi dégg dégg gi des lool te bari na loo xam ne ci réew mi ay liggéeyu diine yoo xam ne suñu bëggee mu gën gën a jëm ca kanam faw ñu am ay waqf bi ñu dégloo ki nga xam ne moo doon jàngale waqf léegi ci ci ndongo yi wax na waqf boo xam ne du génn dara waaye wax na waqf boo xam ne day génn dara maanaam daara ji ku tabax daara wala hôpital loolu waqf la boo xam ne dañ koy jariñoo moom ci boppam rek waaye ku tabax nag marché ne li ciy génne wala immeuble ne li ciy génne dama koy def ci hôpital ba wala dama koy def ci jàngalekat ya mu doon seen salaire loolu la ñuy wax fu waqf fu istismaar yi maanaam waqfu boo xam ne ci investissement la jëm boobu nag moo fi xaw a manqué ndax da ngay gis nit ku baax koo xam ne day tabax yi daara rek di dem wala muy tabax yi jumaa rek di dem te fekk na waroon naa tabax loo xam ne ju jumaa jum tabax rek wala daara jum tabax dana fexe ba wutal ko loo xam ne mooy téye daara ja wala mooy téye jumaa ja waaye bu dul loolu jumaa ji day ràpp ña fay jàngale wala wala ña fay taxaw di ko di ko jiite tumuranke ñu di leen taxaw di leen yalwaanal te bu loolu amoon loolu yëpp dana mën a e, saafarawu kon yooyu ci liñ fi déggee ci lu am am solo loo xam ne e, wax dëgg yàlla e, yitteel nañu lool ndax moo taxoon ñu taxawal ci ab mbooloo boo xam ne day yëngatu ci wàllu woowu ñu di ko wax al hikma kon mbokk yi kon mbokk yi xam naa ko tënk rek ñoo ngi delluwaat di wane sunu mbégte ci liggéey bii di ci gërëm sëriñ Malick ak euh, sëriñ Daam ak ak sëriñu Omar ma dem yàlla na ko yàlla dolli njëggal ak yërmande ci taxawaay yu mel nii ñu def ba amal barab bii ba liggéey bu mel nii man fi am yàlla na yàlla fay leen yiw yiwu àddina ak alaaxira te dolli seen kàttan waaye bari seen i ndax bari na ñu leen ëpple sax ci réew mi xëy na ni ma koy faral a waxee itam senegal nag nit ñu baax a ngi fi nit ñu tabee ngi fi da ci am ñoo xam ne rek dafa laaj ñu won leen yoon bokk na ci métit yi nga xam ne moom lay gën a am léeg-léeg damay dégg koo xam ne dafa bari la lool bu ma déggee ne génn na àdduna euh, njàqare bi may gën a am ci sama xol mooy waroon naa am am sëñ Mor si walla sëñ daa sëñ daam ndaw moo xam ne doon na ko déglu ba mu teg ko ci yoon woo xam ne dana fi bàyyi loo xam ne dana ko amal njariñ fa mu tëdd léeg nga dégg ko nelaw bari bàyyi fi alal te sax amul doom su amoon lu mel noonu ñu ne ko bàyyi fi sax léeg-léeg milliard wala lu ko ëpp suñ ne ko woon jëlal cent millions ya nga defee ko waqf boo xam ne ba boo demee itam boo amul doom ju lay ñaanal waqf moom dana la fi desal moo tax daal mat na sensibilisation bi laajaat na ko bu baax a baax ci mbir yu mel noonu kon nag ñu ngi sant di sëñ Moor ci liggéey bu rëy bii nga xam ne moom la ñu teg sunu bët gis ko daaw gis ko ren ak mbooleem jàngalekat yi nga ko àndal na xam nañ ne kenn mënul lii waaye équipe ñoo koy def kon nag euh, ñu ngi lay sant te di la gërëm te di la ñaanal waaye di sant yàlla itam ci ne li ngay def nii moom nga fi fekk rek moom nga fi fekkoon démb waajur yi ak maam yi daa nga ko def yow itam nga ñëw xam ne mbir yi du rek sama maam moo dàqoon a jàngale alxuraan sama maam mag ñi fi newoon yëpp mu leen jàngal soo noppee waris na laa laaj yow nag koo jàngal yow nag boo nee ñee sama maam a leen jàngaloon da ngay wàññeeku ne ñii maa leen jàngal mbir yi loolu la laaj mooy da nga ciy sof loo ci def yow mbir yi mooy loo ci def yow bu sa maam baaxee ana yow loo def mbir yi loolu la laaj kon nag ñi ngi soññee ci képp koo xam ne rek da ngay pookarewoo ne sama maam moo fi def lii boo noppee nga ne man maa fi def lii yow nag wax dëgg yàlla bokk nga ci ñi nga xam ne buñ ne sama maam a def moo defoon lee nit ñi mën a waxal seen bopp boo ko waxut it nit ñi mën a wax ne moom de moo fi def lii loolu nag yàlla na yàgg te yàlla na jëm kanam ku ne xam na ne sëriñ Malick Barik Basine ak sëriñ Mor ñëpp xam nañ leen ci liggéeyu lislaam rawatina liggéeyu alxuraan ñëpp xam nañ seen njaboot ci loolu loolu kon waaye nag ma loolu ma nga yemoon xëy na ca Saalum ak waaye lii de ci am solo mooy bañ koo xatal xam ne ëtt bi yaatu na ndakaaru ci la bokk te léeg-léeg sax fi lañ ko gën a soxlaa am na koo xam ne danaan sëñ Mor moom lu muy wuti ndakaaru te moo déedéet fii lañ la soxlaa de ndax am na foofee am na ñeneen ñu fa nekk ñu mën a taxaw taxawaay bu mel noonu kon nag nii sëñ daam def sëñ daam ñoom def sëñ Malick noonu la mooy ñi nga xam ne yàlla xam na ne seeni waajur dañ daan jàngale ngir yàlla léeg-léeg sax ñu xëy te dépense du fa am mas na mas na ma am ku ma wax lu mel noonu muy lu rëy rëy loo xam ne ñun itam war nañ koo bàyyi xel mooy daa am ku ne ma euh, li gën a doy waar de mooy sunu mag ñi daan jàngale alxuraan walla xam-xam wala diine nee na léeg-léeg ñu xëy kër gi njël du fi am xëy na soxna si war a dem ci waañ wa day toog ne di xaar yàlla rek waaye nee na li gën a doy waar mooy ki doon jàngale doo gis ci moom lu soppeeku ca ba mu amee dépense ak bi mu ko ñàkkee bokk yi loolu bind bu rëy rëy la boo xam ne noonu it war nañ koo bàyyi xel xam ne li ñu ci bàyyi du liñ ci am waaye li ñu ci bàyyi mooy dundal li liggéeyu lislaam bi ba liñ ciy fekk yëpp fekk nu ci te ku ne xam ne na ñoom lu ne fekk na leen ci ci barke kon nag yal na yàlla gën leen a dëgëral rek yàlla dolli jàmm dolli wér liggéey bi itam yàlla na ko yàlla gën a barkeel ba mu gën a jëm ca kanam kanam mm, euh, yàlla gën a bari seen i kem kon loolu mooy kàddu yi nga xam ne rek mënuñ ko woon a ñàkk wax pour wax ne euh, liggéeyal alxuraan ni ko imaam Cheikhou géey waxee loolu it mat naa bàyyi xel mbir yi du ki toog di jàngale rek mbir yi mooy ki moom barab bi ñuy jàngalee. mbir yi mooy ki kiy jàngale mbir yi mooy ki fi joxe doomam muy jàngale waaye mbiram itam mooy ki tax ki fi toog di jàngale am lu mu toog mën a toogee kon ñooñu ñëpp moo tax sëriñ Touba moo nu firil xayrukum man taallama alqurana wa allama léeg-léeg ñenn ñi di ko gàttal ba mu mel ni mooy ki toog rek di jàngale waaye sëriñ Touba nag daf ne bi xidmatil kitaab yi xidmatul kitaab nag dafa yaatu ndax yooyu yëpp moo tax mu ne moom bi xidmatil kitaabi wal xadiiti yasbutu laa bi dahabin mawrosi nee na sama ndono man mi ngi ci ki toog di liggéey alxuraan li moo xam alalam la ca def moo xam xam-xamam la ca def moo xam dooleem la ca def moo tax xam xelam sax la ca def kon ñoo ñëpp ci xidmatul kitaab lañ bokk kon nag ñoo ñëpp ñooy dajaloo pour liggéey bi mën a jëm ci kanam yàlla na yàlla dolli xéewal dolli wér wasalaamaaleykum wa rahmatullah Yeah. bëgg nañu lool ci seen teewaay ñu ngi ànd ak yéen bismillah bëgg nañu lool ci anachid yu am solo yooyu ak dalal laat gan yi bu baax a baax ñu sàkku ci yéen ñëpp ngeen àggaat suuf su ko defee fiñ taxawoon fa la ñuy sofee rek incha allahu continuer li des ci programme bi di woo euh, Ka mooy monsieur Ka wala monsieur Diallo mi nga xam ne kenn la ci membre yi nga xam ne wala mooy ci jiite français bi ci école bi ndax yaakaar naa xale yi léegi seen jotaayu xam-xam biñ doon def léegi dégg ngeen ñu def fi ay discours yu am solo ci alluga al arabiya mooy ci langue arabe waaye def ko ci alluga al fransiya mooy ci langue français soo ko dégloo bu baax a baax dangay xam ne kon ustaaz yi nga xam ne ñoo nekk ci école bi ñu ngi góorgóorlu bu baax a baax waaye kadalika musée yi leen di jàngal tamit ñu ngi góorlu bu baax a baax su ko defee jàlloo moom mu nga xam ne moom moo jiite langue français bi moom la ñuy jox ndax bëggoon na ko yëkkati sax waaye booba dafa xawoon a xat tuuti te lim nar a yëkkati dana doon loo xam ne lu am solo lay doon moo tax xaar ba ñëpp teew mu yëkkati ko tamit dafay am solo lool kon ñu ngi lay woow monsieur monsieur Diallo incha allahu taala di la bàyyee kàddu gi su ko defee nga wax ak mbooloo mi incha allah bismillah bismillah aouzu billahi min alsheytaani irajim bismillahi irrahmani irrahim mbooloo mi yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu ku nekk sa tur ak sa sant di leen gërëm si seen teewaay ci bërëb bu sell bi muy bërëbu alxuraanul karim leen sant di xamal nag ñun tamit ñu ngi yëkkati kàddu yàlla def na ne man maay monsieur Diallo maa jiite wàllu français bi ànd seek eh, eh, sama ay naataango si ñoom xëy na mën naa ci lim eh, monsieur Deme bu ñuy wax monsieur Deme moom moo yore njàng mu kawe bi mooy yóbbu xale yi examen ak ku ñuy wax aussi madam njaay faatu njaay moom aussi mi ngi ci école bi waaye ñoo xam ne moom it li mu nekk nekk ci école bi tamit nu mu nu farloo ci njàng français bi noonu la mel tamit ci alxuraan bi moo tax ñu xam ne rek dëgg la yàlla moo ñu jagleel ñuy jàngale français mais ñun tamit ci këru diine la ñu jógee ndax man mi di wax ak yéen sama sama papa imam la woon donc bu yàlla defee ñu xiir ñu si jàng français bi loolu yaakaar naa du yàq dara si suñu jubluwaay di xam ne rek bu ñu paree si sant bi ak ngërëm si ñetti point laa ko doon tënk benn bi mooy nuyoo ñaareel bi di xamal donc euh, mbooloo mi que suñu résultat yi donc boo gisee mu mel nii am na ñoo xam ne ñoo ci jàpp du rek ñu nekk ci école ñoo xam ne ñoo nekk daay am na ñeneen ñu nekk si yeneen daara ñoo xam ne aussi ñëw nañu fekk si fii tey ànd ak suñu délégation dëgg suñu suñu directrice moo waroon a ñëw waaye dafa am délégation bu bu mu yebal ndax moom ci public bi la nekk yabal na ku ñuy wax euh, monsieur Diaw moom mooy président CAP bi président CAP mooy lan mooy koo xam ne fukki école ak juróom-ñaar yu nekk si si si si secteur bi si mbaaw moom moo leen jiite. donc yaakaar naa kooku bu ñu ko yónnee rek doy na mu rax si aussi ku ñuy wax euh, monsieur fay moom aussi bokkuñu école moom aussi euh, mi ngi fii teew ci bâche mi ngi ci wetam ak aussi koo xam ne directrice moom moo ko yebal muy jigéen moom aussi moo ànd ak faatu ñoo xam ne rek ñoo ñëpp dañoo ñëw rek pour jëmmal bis bi bu ñu teewoo ci loolu nag dina xam ne ren mooy suñu ñeenteeli at dañoo xam ne si njàng mi chaque année yàlla def na donc dañuy def résultat cent pour cent maanaam bu ñu amee fukki xale fukki xale yi ñëpp ay jàll. ñu xam ne rek loolu bu xasee ba am rek xam leen ne donc liggéey bu am solo lay monsieur Deme di def parce que du samedi du dimanche ak jour yëpp wax dëgg yàlla mi ngi ñëw te mi ngi dem fu nekk jëlee fa xam-xam ñëw jox ko xale yi loolu yëpp pour bëgg donc école bi comme dañu ne franco arabe la mu jëm ci kanam donc loolu aussi lu mat bàyyi xel la te ñu xam ne aussi. résultat yi cent pour cent yooyu li koy li koy firndeel ren rek weer bi passé def nañu essai essai mooy lan mooy dañuy dimbale kii xale yi dañ di préparer si examen bu mag bi am mois de juin weer bi di ñëw te yàlla def na suñu xale yu ñu yor fii yi monsieur dem ji di yóbbu si ñeen fukki xale ak si ñaar téeméeri xale ak ñeen fukki yi doon jongante fële ci école bu mag ba eh, élève wu monsieur dem mi mu ñuy wax donc Mohamed moom moo jël deuxième te yaakaar naa loolu bu xasee ba am liggéey bu rëy la ndax bu fekkee ñuy wax deux cent quarante élèves ñëw nga jël fi deuxième te ngay franco arabe vraiment loolu lu ñu lu ñu jara lu jara félicité la mais loolu yëpp boo gisee mu am daf dafa fekk dafa am lu jiitu ci dënnu xale bi mooy lan mooy alxuraan donc ñëpp xam nañu alxuraan ku mu jiitu sa dënn leneen loo fa nar a dugal day yomb ndax loolu donc suñu suñu màggaayu borom moo ko dogalee noonu donc ñu xamee ko noonu donc njàng alxuraan ak njàng français loolu yëpp bu si nekk mën aan du yàqal dara xale bi bu fekkee xam-xam bi xale bi di jàng pour jëriñ ko la yaakaar naa du ko yàqal dara moo tax nag ñuy woo parents yi aussi ñu gën si jàpp parce que école eh, wala wala daara ak muy école ak daara ñetti ñetti ñuy ñoo ko séq muy parent d'élève bi muy xale biy jàng ak jàngalekat yi ñooñu ñëpp si chemin bi lañu bokk moo tax il faut ñu leen di ñu leen sant di leen leen gërëm di ñaan da ngeen yokk ñaan parce que école bi wax dëgg yàlla mi ngi jëm ci kanam lu koy firndeel ren bu soobee yàlla mooy ñetteelu ponk bu may jeexale dañuy dañuy bëgg a créer lu ñuy wax annexe maanaam école bi léegi dañuy jóge ci primaire dem ci dem ci collège lu tax ñuy def loolu dafa am xale yoo xam ne yu bëri bu ñu demee ba am examen dañuy seetlu bu ñu leen bu ñu jógee fii dem parents yi si boppam ñoo ñu ko sonn depuis daawaati géej ne dañoo bëgg xale yi daal ñun ñu créé collège bu ko defee xale yi dem fële au lieu ñu dem ñu toogaat fii ndax lu tax loolu dañu seetlu ne xale yi bu ñu demee fële dañuy xale yi dañuy bàyyeeku te dañuy dañuy topp foo bi ba li ñu ba li ñu daa ba ñuy jàngoon fii dañu koy fàtte te bu fekkee dañu nekk fii nag ñoom fii jàng amul taxawaalu boo jàngul boo jàngul français yaa ngi si si jàng jàngu alxuraan donc bu ko defee xale bi day day mën a donc jàng bu baax ak yem mais bu fekkee dafa dem fële dañuy seet ni niveau bi dafay wàcc loolu nag bu ñu ko saytoo ci la ñu tëral benn programme boo xam ne të tëral nañ ko ba pare donc dañuy xaar ba année prochaine ñu tàmbali ko dañ koy tàmbalee par maanaam sixième ak cinquième mooy maanaam am na xale yoo xam ne dañoo dem dañoo jóge fii dem mais seen parents yi dañoo bëgg ñu dellu si pour ñu pour ñu mën a continuer bu fekkee sixième lañ doon def fële mën a ñoo def fi cinquième parce que bu soobee dañ koy créer donc ñu ngi si liggéey ba avancé nañ si bu baax war ngeen xam ne dafa laaj ay ay moyens moyens yooyu wax dëgg yàlla parents yi dëgg la doole yemul mais ñoo xam ne yàlla wërsëgal na leen war nañ si jàpp bu baax a baax parce que yaakaar naa donc donc boo bu la yàlla mayee dara nga koy jëm si donc si ndongo yoo xam ne dañuy dañuy dañuy sàkku xam-xam loolu wax dëgg yàlla lu am solo la ñu bëggoon rek parent yi ngeen bàyyi ci xel ba pare jàpp si bu baax bu ko defee loolu lañ amoon si tënk ci kàddu yu ñuy bu soobee yàlla école buy ubbi xale yi dañuy dem tabaski bu toppee weer bi si topp rek bu ñu ñëwee incha allah ñun donc ñu ngi koy pare. bëgg nag dafa laaj ay mooy ngeen jàpp si bu baax si tënk comme waxtu bi daf ñoo xat daf ñoo euh, daf ñoo tànc vraiment maa ngi maa ngi yem foofu ci kàddu yi lu ñu naan xel day fattu euh, ku ñuy wax monsieur Ba moom aussi si kër kani gi la nekk dama ko fàtte moom aussi mi ngi fii ñëw na moom tamit jëmmal bis bi bu ko defee mbokk yi ñu ngi ñu ngi sàkku si yéen ñaan bu baax ngeen dolli du ñu ñaanal ndax euh, donc franco arabe bi jëm kanam te bu jëmee kanam njëriñu ñëpp la loolu laa amoon si tënk lu may wax maa ngi leen di sant di leen gërëm di santi ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf euh, monsieur Diallo kaddu yi tënku na lool te am na solo yaakaar naa parents d'élèves yi dégg nañ ko bu baax a baax a baax a baax ndax jàng ñaar rek ñoo ci jàppale jàppalante pour mën a dox mooy jàngalekat bi jàngale waaye parent bi tamit jàpp ci bu baax te li wax dafa am solo euh, xale yi nga xam ne ñooy génnee ci daara léeg-léeg ñu mat a taxawu lañ ndax bu ñu leen taxawoo rek day am solo lool man lañ leen tënkal at yu baree bari yoo xam ne dañ ko doon def ci public bi ci euh, privé bi bu ñu leen maanaam surtout franco arabe bi mën lañu ko tënkal bu baax nga xam ne tey ñu ngi doon jàng juróom-benni at ñoom ñu tënkal leen ko def ko ñetti at loolu li ko waral mooy alquran jiitu seen dënn ndax alquran mooy li nga xam ne bu jiitoo ci dënnu xale bi rek ubbeeku da ciy da ci da cay doon da cay nekk li mu wax tamit ñu ngi leen ciy ñaanal bu baax sunu borom subhanahu wa taala jàppale leen ci bu baax a baax te bu amee lu am solo lay doon te mooy njàngum xale yi am continuité ni muy amee continuité mooy ni ngeen fexee ba ñu pare ci alquran ñi ngeen créé loo xam ne ab euh, primaire la waaye collège boobu ngeen di naal tamit bu amee day doon loo xam ne lu am solo la loolu dana gën a mën a jàppale bu baax xale yi seen jàng gën a gaaw ndax collège ñu ngi koy def ñeenti at yéen bu ngeen ko fekkee da ngeen koo tënk man ngeen ko def ñetti at ndax ñaar sax mën naa doon waaye am na ñoo xam ñetti at lañ koy def waaye ñooñu dañ ciy boole euh, formation formation euh, professionnelle maanaam dañ ciy boole lu mel ne informatique di ci boole lu mel ne wàllu euh, alkahraba mooy électricité am na ñoo xam Tuubaa noonu la ñuy def am na am na collège yoo xam ne am na fa kon loolu bu amee tamit lu am solo lay doon ci dëkk bi dana jàngal dana jàppale bu baax baax xale yi nga xam ñoo jaar ci ñoo jaar ci daara kon mbokk yi xam naa dañuy continuer dañuy am dañuy continuer bu baax a baax programme bi xale yi nga xam ne ñoom lañu waxoon ne fukki xale ak ñett ñoo wattu alquran ci daara ji mu mel ne jël nañ lu tolloo fukk juróom-ñeenti xale jaar nañ fi tari njàng alquran njàngum alquran mu neex macha allah te leer nañ ji dëppoo maxaarijul xuruf boo xam ne bu am solo la ba noppi riwaaye warsh bu am solo xam naa dañuy continuer ci dañuy am dañuy continuer ci xale yooyu nga xam ñoo mokkal ñu woo xale bi nga xam ne moom la wax Mortala Ngom di doom ci sëriñ Moodu Ngom ak soxna Kumba Ngom dëkk Bawal su ko defee incha allahu taala dañ koy bàyyeek sëriñ Ousmane si mu daal koy laaj incha allah ayo Mortala Ngom bismillah jërëjëf ci jotaay bi di nga koy amalee am na solo kon sëriñ Mortala di sunu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 بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يوفك عنه من أفك قتل الخراشون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل السائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون السماء رزقكم وما توعدون فورب بالسماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون صدق الله العظيم جزاكم الله خيرا تبارك الله jërëjëf Serigne Mortala Ngom ci njàng mu am solo moomu di ñaan yàlla mu barkeel la bu baax te barkeel sa alquran barkeel sa dund bu baax a baax sa alquran jariñ la bu baax a baax a baax xam naa kon dañuy sàkku ci yow Mortalla ngoom nga wàcc ci suuf su ko defee sëriñ Ousmane Cissé mi nga xam ne mooy njiital parents d'élèves yi mu joxal ñu ko diplôme ak i waajuram sëriñ moodu Ngom ak soxna Kumba Ngom su ko defee ñoom ñu jox ko diplôme am ànd ak sëriñ Ousmane moom nga ne moom mooy njiital parents d'élèves yi su ko defee ay wa sëñ Mortala Ngom moo nekk noonu ak ay waajuram ñu di ko jox shahada wala diplôme bi wane ne daara ji seede ne na moom wattu na alquranul karim yal na barkeel ko xam naa kon dañuy woo xale bi ci topp rek mooy Sidi Wadd di doom ci sëriñ Njaga Wadd ak soxna Fari dëkk Touba bismillah sëñ Sidi Wadd sëriñ Sidi Wadd بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم لله قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم أظلم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزؤا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها عولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئت جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي يوحى إلي أنما إلهكم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم الله سيرين سيدي واد ci ayat min zikril hakim yu neex yooyu te tegu ci yoon jazakumullahu xayran jërëjëf sëñ Ousmane ci laaj yu am solo yooyu sëriñ Sidi Wade njàng mi tamit leer na te am na solo yal na yàlla barkeel la bu baax su ko defee sëñ Sidi Wade ñu ngi sàkku nga wàcc ci suuf di doom ci sëriñ Njaga Wade ak soxna Fari Sarr dëkk Touba su ko defee ñuy woo sëriñ Alxaaju lu Gay mu joxal nu ko diplôme ñu ngi sàkku ci sëñ Alxaaji lu Gay mu jox sëriñ siidi Wadd di doom ci sëriñ Njaga Wadd ak soxna Fari Sarr dëkk tuuba mu joxal ñu ko shahadaam ñu ñaan yàlla mu barkeel bu baax a baax a baax kon xam naa mbokk yi su ko defee dañuy jàllalewaat ay kaddu yoo xam ne yu am solo la kaddu gi nga xam ne moom lañuy ñuy waaj a yëkkati nag xam naa laata loolu sax am na ku ñuy wax sëriñ Buso mu mel ne kilifa yi nga xam teew na ci jotaay bi ci la bokk waaye day mel ne day waaja a tàggatoo su ko defee balaa ñuy jox kàddu gi sëriñ Abdul Ahad Si mi nga xam ne mooy wax ci tolluwaayu daara ji ak yi nga xam ne daara ji mi ngi koy méwét ci ëllëgam balaa ñu koy jox muy wax ci loolu dañuy jox sëñ Buso rek mu wax ay kàddu yu gàtt rek bu ko defee tàggatoo insha allahu taala bismillah auzu billahi min aseytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaam ala asrafi almursalin sayidina wa mawlana muhammadin almakin wa ala alihi wa asaabi xulafai wa xeyra xadimi ajmahin wa man ihtada bi hadihim ila yawmi ddin rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli assalaamu aleykum wa rahmatullahi bokki jullit yi teew yëpp bokki taalibe yi góor ak jigéen mag ndaw gan ak dëkk noo ngi leen di jottali ab nuyoo bu bàyyi ko ci sunu kilifa bii tax mu ñëw teew si fii tey teewal ko fi tam muy seex Mouhamadou Mourtada Mbacke mu seex Mouhamadou Fadal sëriñ bi wax ne mi ngi leen di nuyu turu sëriñ Abul Baraka di sëñ Mbacke Bousso mi toog jotaayu seex Mouhamadou Fadal ak mboolem njabootu sëriñ Fallilou gépp di leen nuyu turu xalifa général des Mourides seex Mouhamadou Mountakha Mbacke ayyadahu llahu wa nasara afisahullah wara di ñaan yàlla buur bi yàggal ko fi lool te dolli ak wéram ba li moom ba yéene liggéeyal ba Seexul Xadiim borom bi kàttanal ko mu jëfee ko nu kawe njortam te ñu ànd ko ak moom di nuyu mbooleem kilifay diine yi nga xam ne yàlla def nañu teewe jotaay bi yépp waaye di jiital ci nuyoo bi sunu wóllëre sunu xarit sunu lépp di sëriñ Malick Ndaw ak euh, sëriñ Daam di ñaanal yàlla sëriñ Omar yàlla yokk yërmande ak njéggal ci moom ci ñoom ñi nga xam ne ñoo am initiative bu rafet bi ak xalaat bu rafet bii ba samp fi daara ji bi nu sampee daara ji itam ñu tànn doomi soxna joo xam ne démbam ak barki démbam lépp alxuraan rekk la woon muy sëriñ moor si mii toog léegi rek ci biir maa ngi koy wax naan ko sunu sëriñ kat ñun nee na sëriñ Asa si rek la def mu dib sëriñ te sëriñ Asa moom yi mooy waay juróom kon loolu dalay wan ne rek ndax moo ko doon jàngal alxuraan moom sëriñ Abo mu sëriñ Fallu mi di xalifa tey sëriñ Xaasa moo ko doon jàngal kon loolu day wane rek ne daara ji daara la joo xam ne naka jekk ñoom waa alxuraan ñoo ko yoroon di ko doxal ba mu agsi fii tey li gën a yéeme ci jotaay bi nag mooy dal gi nekk ci jotaay bi mu yar bi ak teggin yi nga xam ne moom la alxuraan war a làmboo nga xam ne bi Sëriñ Tuubaa di ñëw ci jamono lam fi fekkoon mooy mbóosóor mu àndoon ak alxuraan mel ni lu doon yàq taxawaayub alxuraan ba loola di law ba nar a yàq li taxoon alxuraan jóg sëriñ tubaa ñëw di dindi loola di ko sànni di ko teqale ak alxuraan ak di wane li tax alxuraan jóg ba selluk alxuraan mën naa yegg fii mu àgg tey ba daara jii tey di doxee doxin woowu nga xam ne moom la sëriñ tubaa tànnoon ci alxuraan sampoon ko ci alxuraan bëggoon ko ci alxuraan mu di ko doxe daara ji di doxe noonu tey ba donga yi am yar boobu tey ba ku leen fekk si tey boo yaruwul woon indaale fii boo ñëwee faw nga yaru ndax li nga fiy fekk ci ab yar loolu nag mooy li am solo ndax euh, ragal yàlla dëgg-dëgg soo ko defee faw nga am ak dal faw nga am ab yar ndax xam-xam bi jëriñul lu may ragal yàlla rek waaw innama yaxsa allahu min ibadihi ulama la suñu borom wax ñi gën a ñi gën a am xam-xam ci yàlla ñoo ko gën a ragal moom la sëñ Tuubaa di wax naan inna lasi lam yaxsa rabbal alamin laysa bi aalimin wala afnal funun bu fekkoon da jeexal fenn xam-xam yépp te amoo loo ak ragal yàlla day mel ni xamoo dara ak ragal yàlla nag saa boo ko amee faw nga am ak dal faw nga am ab yar faw nga am ay teggin kon taxawaay boobu nga xam ne moom ngeen taxawee te ñoom e, ci moom ngi sëñ Tuubaa moom alxuraan e, nga xam ne ñëpp xam nañ ko ndax malaktu mala tam lii tamlikan ya doom wax na ko malakanil qur'aana wal xulooma it wax na ko moom naa alxuraan moom gu sax moom ngu sax gi dem na it ba ne moom naa alxuraan ak xam moom gi alxuraan moom def na ci ay màndarga yu leer yu ko nit ñëpp xamee ne moom moom na alxuraan ndax alxuraan mën nañ ci mën ci joxe rek benn benn benn benn benn tegtal mooy sëriñ jaaxa siise mi nga xam ne moo jur sëriñ moon mbay siise mi yoroon daaree alxuraan ci njaareem ñëpp xam ko ba muy njëkk ñëw ci sëriñ tubaa sëriñ tubaa ba mu ko nuyoo mu ne ko looy dox mu ne ko damaa ñëw di la jox si sama bopp da ko ne noo def ak téere bu mag bi téere bu mag boobu mooy ndax ku sa ñëw sëriñ moom loolu rek la am yitte ci yow mu ne ko man naa ko lool ba defee ne kenn daquma ko mu ne ko kon nag gannaaw bu ma jullee gee ba àggal na ñëw nettali ma ba mu jullee gee ba def ay loraatam yéeg ci kaw lu mel ni ak tooj toog ca sëñ sëñ jaaxa ñëw di ko wër di tari alxuraan tàmbalee bàqara ba minal jinnati wan naas bi mu taree ba ak si minal jinnati wan naas ci kanam sëñ tubaa sëñ tubaa siggi daal di ko ne waaw waaw man nga alxuraan lool de waaye nag da koo moomut waaw daal di ne waaw ana ana ana ana ana ana loo daan dunde mu ne mu ne ko soo bisa masa bind ab kaamil lu ñu la ciy jox mu ne ko boo si bindee kaamil joxe ko des na ma ci jox ñett dërëmi ngurdu sëriñ bi ne ko baax na kon nag demal bind kaamil andi ko mu bind kaamil andi ko jox ko seexul xadim seexul xadim daal di ko ne nga bàyyi koo koo fa a jege ci fere yi yi si fii mu daal ko ne sëñ Masamba Diop Sam day noo dëkk mu ne ko kon na kaay ma yóbbu la yónni la ca moom daal di bind ay ay kaddu wax sëñ Masamba Diop Sam ne ko maa fi yebal kooki bu ñëwee nga màggal téere boobu ak jëmm ji ba mu ñëwee jox sëñ Masamba Diop Sam kayit woowu kayit bi sëñ Masamba da ko jàng ba àggal taf ko ci kanamam siyaare ko daal di koy wax ne ko lu ñu la daan jox boo bindee ab kaamil mu ne ko ñett dërëmi ngurdu mu dugg ci biir génn ñetti téeméeri dërëmi ngurdu ñëw jox ko mu tàllal ko téere bëgg koo jox mu ne ko mayaat naa la téere bi mbind mii Sëriñ Tuubaa bind jëm si ci man rek doy na ma sëkk walis alxuraan bi ban ba mu jël si waatee ci Seexul Xadiim mu laaj ko nu mu defee ak moom mu nettali ko nii mu demee mu daal ko ne waaw kay dama la doon xamal rek ne ku ko moom noonu la koy nag ñii toog tey seen maam Sëriñ Malick Basisi dafa ma sa ñëw ci Sëriñ Tuubaa ne ko man de damaa dégg ñu ne yaa digal ku mokkal alxuraan muy def ñaari isib di ko jàng bëccëgee ak nisif di ko wax waqaf ak di ko naafila bu guddee mbàkke bëgg gu ma la bëgg nag tax ba ma ko déggee ba tey ma saxal ko di la laaj ba xam ndax am naa ci yoolam déet Sëriñ Tuubaa da ko wax ne ko yow de li nga def mi ngi mel ni for soo dajee ak borom su ko neexee mu fab su ko neexee mu baag yow waaye yow de alxuraan joxees na la ko mu ne ko mu mbàkke nu ma koy mu xanaa di jàng rek foo yem tey bu ëllëgee nga tàmbalee loolu moo waral musta nangoo tëj ab kaamila mu jeex saa bu nekk day jukki bi mu war a jàng da koy génne taf ko ci wet gi ba bi mu génnee alxuraan fekk nañ jukki boobee ca laf ca euh, xëtu euh, téere feggu téere ba mu laf ko fa kon ñii ci ñii nga xam ne suñu borom mi moom alxuraan wàcce ko teg ko ci loxo loxoy Seexul Xadim teg na ko ci seeni loxo kon ku ñuy jàngal ku nekk barkeb alxuraan boobu day wàcc ci ñoom ndax sëñ Tuubaa mi ko moom moo leen ko jox kon sëriñ euh, Mor Si sant yàlla suñu borom ci taw féexale gi nu borom taw féexale ñu fekk si jotaay bi li ma wax léegi ci biir bi may añ dama leen man ñëw fi di nafar si damaa ñëw di jàng si kon taw la ndax li ñu fi fekk day na sëkk ci nun ci wàllu yëpp euh, noo ngi ñaan yàlla suñu borom mi nga xam ne dara tëw ko ak gémmi Sëriñ Tuubaa Cheikh Mamadou Fadal yàlla na def barke bu alquran wàcc ci daara ji wàcc ci ñooñ daara ji yàlla na ñi nga xam ne ñoom ngeen def ci ñoom alquran sampaat yoo xam ne daara ji moo ko meññi ci ni ngeen taxawee ci ñoom sampe ko ci daara ya ngeen jëli ba fépp mu àgg fa ci darajee Sëriñ Tuubaa ñi nga xam ne ñoom ñoo ko sosit taxawal taxawal ko tey fab seen alal di ci def euh, ñoom it yal na leen yàlla gën a kàttanal yal na leen yàlla gën a dimbale bañ gën a mën a àttan liggéey bii lépp loo xam ne yéene nañ ko ci seen xol yàlla na ko seen kàttan romb bañ mën a defal alxuraan liñ ko bëgg a defal ci daraje Sëriñ Tuuba ndax lii kat lu raar la ci jamono nangoo taxawu alxuraan nangoo sàmm waa alxuraan nangoo defaral waa alxuraan defaral waa alxuraan fuñ mën a nekk ba mën a liggéeyal alxuraan loolu yombatul ci jamono ji jamono ji leneen moo leen yëkkati lu may loolu ginnaaw ay ñi ñi yor ay neen dong ñi ngi ñi ngi dëggal seen ñoon yooyu di ko fóoriise ba neen neen dem koo xam ne am nga war nga ko fonk war nga ko taxawee teewal mooy liggéey bii tey noo ngi leen wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf sëñ bu sa kàddu yi am na solo lool yal na yàlla barkeel lépp xam naa kon am na kàddu goo am solo goo xam ne warees na koo yëkkati te sëriñ Abdul Ahad si moo koy yëkkati mu nekk kàddu yoo xam ne day ñeel daara ji wala day jëm ci tolluwaayu daara ji ak daara ji mébét yi nga xam ne bëgg na ko ci ëllëg kon moom la ñuy jox lu tolloo quinze minutes rek su ko defee su paree am na ay kàddu soññee yu am solo yoo xam ne sëriñ Ahmad Fadal Ndiaye dana ko taxawee incha allah taala kon sëriñ Abdou Lahad Sy bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى نحمده تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه نحمده تعالى ونشكره على جميع نعمه المتكاثرة نعمة الإيجاد والإمداد والهداية ونعمة القرآن ونثنيه عليه تعالى بكل ما يستحقه من كل من صفات من الصفات الجلال والجمال كما شهده تعالى لنفسه عند قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم نقر له تعالى بذلك ونسأله تعالى أن يديم الصلاة والتسليم على حبيبه المبعوث رحمة للعالمين محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وبعد أيها الحضور الكرام أصحاب الوجوه الطيبة والقلوب البيضاء والنيات الصافية والهمم الصادقة أحبة القرآن أهل الله وخاصته نحييكم جميعا بتحية الإسلام التي هي تحية tayyibatun mubaarakatun min indillah ala wa hiya assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh wa nurahibu bikum jamiican fi haada almajlis alqayyim والمرتع الكريم التي هي روضة من رياض الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا له قالوا وما رياض الجنة قال حلق الذكر mbokk yi gannaaw bu ñu dooree ci turu yàlla borom bi subhanahu wa taala di ko sant te di ko kañ di ko bank di ko bakk ci mbooleem li mu yayoo ci ay turam ak ay melukaanam di ko sant ci xéewalam yi nga xam ne du xaaj du jeex doore ko ci amal gim ñu amal waaye wëlbatiku di ñu xéewale waaye gindi ñu boole ñu ci ñooñu alquran ñuy jullu ci sangu-sang yi sayidina muhammad tey sëlmal ñoo ngi dellu di nuyu si mbokk yi fi teew yépp ku ci nekk ci turam ak ci melokaanam maanaam ci ni ko yàlla def li ko yàlla jagleel maanaam kenn ku ci nekk daal ñu ngi koy dalal dalal ba nga xam ne moo war ci moom di leen nuyu waaye di leen ndokkeel ci jotaay bi nga xam ne day jotaay bu tedd jotaay yi gën ci kaw suuf mooy jotaayu alquran ndax yu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dane woon bu ngeen rombee maanaam rawda min riyaadil janna bu ngeen rombee ab toolu dër boo xam ne lépp luy naataange luy ngërëm luy yërmande yàlla mën na caa juddoo na ngeen fa rom na ngeen fa toog for ñu laaj ko lan la mu ne yooye mooy xilaqu zikr mooy géew yi nga xam ne dañ koy géew ngir yàlla loola nag dara kawewu ci alquraanul karim bi suñu borom waxoon ne wa innahu waxoon yonent bi ko wa innahu la zikrun laka wa li qawmik wa sawfa tusaluun mbokk yi ci turu alquran ñu leen di dalal waaye di am yéene yëkkati kàddu yi ñu yëkkati di ko jëmale ci mbooleem ñi fi teew di ay parents d'élèves waaye mboolem ñi fi teew di ay mbokki sëñ daara mboolem ñi fi teew di ay dëkkandoo mboolem ñi fi teew di ay soppey alquran waaye lu njëkk kàddu yooyu dañuy rendre hommage ñaari jëmm yoo xam ne tey jotaay bu bu mele nii donte ne nekkuñu fi seen loxo ma nga ca ñu dooree ko ci mbokk mi daane léegi mi ngi koy wax mooy sëriñ ahmadou haza si nekkoon way jur ci sëriñ moor tey mañ nañ ne maanaam jotaay bii meññet la ci meññeti ay jëfam ak dundam ndax arab day wax ne al waladu sirru abi keneen kiñ ciy rendre hommage mooy sëriñ moor jóob ndar ndax ku ne xam na ne lu ma ne sëriñ moor maanaam suñ moor si mi wala daara ji ndar la jofale ab taalam déedéet jofale wu ko fa ndax sëriñ ahmadou haada si ak ay maami maamam ñooñu alquran lañ woon ñu ñu ràññeele ci réew mi sëriñ ahmadou haada si moom it noonu la meloon keroog ndar bi ma fa ñëwee di nekk fa gan sëriñ moor Diop radiallahu anhu wa ardah ngir firndeel lima wax ne sëriñ moor jofale wu fa dane ma yéen bu ñu nekkee ci alquran yéen lañ ciy jàppale waaye yéen seen seen seenu tool la loole kàddu soññee la woon ci man waaye kàddu seede la ne ci ne fii nga war a teg sa tànk sëriñ Mor Diop sëriñ Mor si mii nga xam ne tey mooy njiitu daara ji jaar ko ci man sëriñ Basiru jàngalekat yi fi nekk ñi ëpp ci ñoom daara jooju la ñu génne kon dañ koo yoreel njukkeel lu rëy a rëy a kon ñu ngi ñaan ñaari way jur yooyu ñaari kilifa yooyu yal na leen suñu borom fay yal na suñu borom yokk seen yiw yal na leen yàlla yokk ngërmaane yokku leen yërmande ak njëggal goo xam ne day law ba ci mboolem jullit ba faatu ak ñi dund ñëpp waaye ak yeneen ñoo xam ne ñàkk nañu leenu daara ji mu ngi leen di fàttaliku bu baax a baax te bi ñuy door jotaay bi xale yi wàcce nañu fi ñaari kaamil yoo xam ne man mii maa jàng xatmu bi ñu doon ci ñaanal suñu baay sëriñ Omar Ndaw ak suñu mbokk suñu dëkkandoo nekkoon chef de quartier fii mooy alhaji Hassan Seck nekkoon baayu daara ji ñu ngi leen di fàttaliku di leen ñaanal ak mboolem way dawlu yu baax yépp rawatina ñi dëkkaale woon ak daara ji soxna si nekkoon fii mooy madame Guèye moom it ñu ngi ñaan yàlla na yërmande yàlla yees ci kawam ak ñam fa fekk ñëpp ndax da doon soxna su baax daara ji fàttewu ko gannaaw bu kàddu yooyu jàllee li nga xam ne mooy kàddu yu daara ji mooy rekk daara ji day yeesalaat kóllëre gi nga xam ne moom la séqoon ak parents d'élèves yi kóllëre gi nga xam ne moom la séqoon ak askan wi jullit ñëpp te mooy moom dafa tànnoon aw yoonam mooy mu taxawal li ñuy wax daara daara nag ku ko wax dafa am ay liggéeyam mu toggoo ci ñeent mooy bi ci njëkk mooy alxifdu wa riaya mooy da ngay sàmm waaye di toppatoo ñaareel ba mooy at tarbiya mooy da ngay yar ñetteel ba mooy at taalim mooy da nga koy xamal ñeenteel ba mooy da nga koy takwiin mooy da nga koy def mu nekk jëmm joo xam ne bu sottee day nekk doomu aadama typique maanaam day nekk doomu aadama wala bu day nekk ab jullit boo xam ne ab jullit lay doon bu mat sëkk dara du manqué ci moom ci ne dana mën a jaxasoog nit ñi dana leen mën a jariñ te duñ ko maanaam te du leen lor ci leen ci daara ji ñeent yooyu nga xam ne moom li mu adopté woon ne mooy aw yoonam muy jàngale ak taxawal daara ci yooyu daara ji mi ngi ciy dox bu baax a baax a baax di ko seede ci kanamu mboolem way teew yépp waaye di ko feddaliwaat ci kanamu parents yi te mooy li ci njëkk li ñu waxoon mooy alxibdu wa riaya mooy sàmm gi ak toppatoo gi daara ji ci njiital sëriñ moot si bi nga xam ne moom mooy mudir bi al mudirul am danañu fexe ba xale bi bu dikkee buy door a dikk danañ ko dalal ci fexe ba toppatoo yitam aw dëkkinam aku nekkinam aku cetam ba nga xam ne xale bi bu dikkee danañ ko dalal ci dëkkuwaay boo xam ne day set fexe ba mu fa muy tëdd fa muy fanaan fa muy toog day nekk foo xam ne itam fu mucc ayib la ba am xelam dal ak wéram maanaam wér gi yaramam aku ca tamit dañ koy toppatoo nga xam ne ñoom xale yi bu maanaam semaine bu nekk bulus yi ñu leen defal ak yeneen nga xam ne moom la ñu sol ci semaine bi ak yeneen yére yoo xam ne ay moyen lay doon moom la ñu sol alxamis beeg euh, maanaam ajjuma bi nga xam ne dañuy génn nga xam daara ji daanaka ci loolu man nga ne machine bi ñu yor te muy fóot du taxaw mukk jamono ju nekk mi ngi fóot di lakk courant bu bari waaye lépp li ko waral rek mooy ngir yittewoo setu xale yi kazalik ci seen wàllug wér daara ji amul benn kii boo xam ne day ñàkk garab jamono jamono bu nekk ñu ngi fi bàyyi garab xale boo xam ne lu ko maanaam bu aw yaramam tàngee sax danañ ko jox loo xam ne jàpp nañ ci baax na ci mu saafara ko ngir xam nañ ne loolu itam dafa bokk ci li doxoon suñu digg ak parents yi moo tax ñu ngi koy sàmm di ci bàyyi xel bu baax yàlla ci suñu digg ak moom waaye di ci bàyyi bàyyi xel bu baax parent yi ci suñu digg ak ñoom ak yi ci war ci bañ ñu defee bañ ñu mayee confiance ba dénkuñu ñu war leen koo delloo te muy ab njukkal waaye di ci bàyyi xel suñu digg ak donc xale yi nga xam ne ay tuut tànk lañu waaye ëllëg ñooy màgg kon daara ji mi ngi sàmmanteeg loolu du ñu manqué mukk garab te saabu bu loolu dañ koy yóbbu ci hôpital yi ñu jege ku ca demoon tey danañ danañ ràññee bu baax daara ji loolu mooy li jëm ci wàllu alxifdu wa riaya kazalika wallu tarbiya bi daara ji maanaam dafa bokk ci ab ligne éditoriale maanaam ab doxinam mooy day yare te loolu dañ koy def ci biir suluk bi jàngalekat yi fi nekk dañ ciy yare waaye day am yenn ay jëlasaat wala comme nga xam ne julli gu nekk dañ leen di fexe ba taxawal ñu koy julli ci waxtu wa yi ci ëpp yenn gannaaw julli yi ñu leen di nettalil ay xisas yoo xamee ne maanaam xisasul quraan yàlla lil atfal nga xam ne ay xissa la yoo xam ne waaqi lu amoon la nit ki man cee jël am njàngat man cee jële am xelam dañ koy nettali xale yi ci niveau boo xam ne dana tolloog ñoom ngir jublu maanaam yar leen loolu daara ji da koy def lu jëm ci wàllu jàngale daara ji ba tey desu ci gannaaw te loolu firndeel li mooy li fi jàll léegi la ci njëkk mooy xale bi bu njëkk bu ñëwee li ñuy njëkk tàmbaleek moom mooy alquranul karim ñu koy jàngal ci alquran jooju la ci njëkk te mu nekkoon responsabilité membre daara ji mooy fexe ba xale bi ñu tànnal ko sëriñ daara boo xam ne maanaam ku xereñee li muy def la ku ko man la loolu yàlla dimbale nañu ba daara ji ñi fi nekk ñëpp ku ci jëloon jàng ñëpp mokkal alquran te ku ci jàngoon da nga naan macha allah te loolu li ci mooy xale yii nga xam ne li ñu tari léegi nekkul lu dul meññeentem ña leen di jàngal kon ci loolu la ñuy gërëm ba jàngalekat yëpp te di leen di sargal di leen ñaanal yàlla suñu borom fay leen ndax moom rek moo leen mën a fay waaye daara ji loolu mi ngi koy jox gëdd ci wàllu njàngum alquran buñ ci jógee ci wàllu njàngum diine wala njàngum leneen njàngum diine bi dañ leen koy jàngal ndax daara ji dafa amaale méthode majalis bi nga xam ne moom mooy cëslaayu daara ji ndax ñun ñëpp ci la ñu jànge woon danañ leen jàngal téere yi nga xam ne moom la jàng ci majalis dawaree ko ci maanaam kitabul al akhdari ak ashmawiyu ya ca tegu muqaddima ba risala danañ leen jàngal itam téere yi nga xam ne téere réew mi la lu mel ne tazawudu sigaar tazawudu shubban waaye di leen fexe ñuy mokkal yenn ci ay mutuun yi nga xamee ne mutuun diini la rawatina nag lu mel ni xadiis loolu daara ji da ciy dox bu loolu jàllet danañ leen takk takwin ndax daara ji bi mu xoolee ñun ñu xool ci suñu njàngat ak suñu tolluwaay dañuy gis ne ñun ñi daan jàng diine la ñuy jàng mooy dëgg mooy li wér te mooy la gën waaye nag day loo xam ne gaawul te àdduna nekk lu bët di tege te doomu aadama ak ni ko yàlla bindee muy muy muy koo xam ne maanaam dara matut li teew ci bëtam rek daanaka bànneexam ci lay gën a jege moo tax ñu bari ci ñun dañ daan jàng nekk ci daara ba génnee ca waaye mbiri àdduna dañuy gaaw a wor ci loolu nag daara ji ngir dabaatal loolu moo tax mu fabriqué xale yi ñu leen di former defal leen benn maanaam formation boo xam ne anticipé lay doon ci wàllum programme yi ñuy jàng ci école yi maanaam école franco français yi waaye ñu defal leen ko mu nekk franco arabe ba noppit franco arabe bi day nekk cinquante cinquante maanaam day man langu arab waaye day man langu français itam canam ware te loolu firnde ji euh, Moussi Diallo seede na ko léegi ndax xale yi nee na ba ñu demee ci fañ doon defee lu tollook maanaam sans jàppatuma lim bi mu wax waaye nee na xale bi jóge woon ci daara ja moo fa jël deux loolu firnde la ci te yàlla defal nañu sutura bi ñu tàmbalee loolu ba léegi nga xam ne diir bi xale bi daan def six ans mooy fi muy defee maanaam CI CP ak C1 c ba bi muy am CM1 CM2 di six ans léegi daara ji trois ans lañ koy def te yàlla defal nañu sutura ñi fi jógee ñëpp bu ñu demee cent pour cent dañuy am maanaam résultat yi ñuy xaar ci ñoom te dañuy bokk ci ñi ràññeeku comme ni ko monsieur euh, maanaam dem waxee léegi kon loolu firnde la ci daara ji firnde it mooy xale yi discours arabe yi ñu doon def ñoom lañ wax ne leen dañuy am maanaam genre dañuy am lu mel conférence ñoom ci ñoom nañu bind ku ciy gën a kii de moom moo koy def moom mooy maanaam jàllale lam bind du ñàkk yenn corrigé comme ni ko jàngale kat yi xamee waaye ñu xam ne méthode boobu lañ leen ko def loo ngir ne loolu ci ñoom la nekk ndax dañ koo def ci ñoom kon wàllu jàng mi noonu la ci daara ji taxawee ak lu jëm ci wàllu formation bi te mooy dañ daan dem ba fi ñuy amee maanaam CEVA mooy certificat waaye comme ni ko monsieur Diallo annoncé léegi mooy léegi daara ji yamatul ci loolu waaye day adopté maanaam li jëm ci maanaam asilkul i'dad yi te mooy collège bi da koy def mu nekk ci diiru ñetti at loolu li ko waral mooy bëri na ci parent des fi ñoo xam ne dañ koy jàmbat ak ñenn ci ñi nga xam ne doomu daara ji lañ woon nekk seen doomi xol te damay wax ne jur dana ñëw gis donga bi du xam ne yow miy jàngal donga bi mën naa am yaa ko ci ëpp cofeel du ma ne yaa ko ci ëpp cofeel waaye léeg-léeg man day day dal jàngalekat yi sëriñ daara yi fi nekk mën nañ koo seede léeg-léeg sëriñ daara dana toll foo xam ne daanaka mooy gën a jege maanaam ak ruuxam mooy gën a jege ruuxu xale bi ba nga xam ne leneen lum koy defit dafa fekk ne lam koy yéene moo gën a màgg waaye mën nga ne moo ko gën a bëgg way juru kon loolu ñu xamee ko noonu kon nga gis ne daara ji ci ñett yooyu mu nekk maanaam ñeent yooyu mu nekkoon te mooy di jël xale bu ñëwee mu dalal ko yittewoo ci sàmm ko ak di ko toppatoo waaye fexe ba yar ko yarin boo xam ne day dëppoog ni ko lislaam euh, santaane waaye fexe ba jàngal ko xam-xamu diine waaye yee ko ci àdduna ba nga xam ne du am lenn lu muy euh, maanaam ñeewee ñooñu àdduna loolu daara ji ba mu dooree depuis mille 2014 ba léegi ci la nekk boobaak léegi am nañ ci ay résultats yu bari ndax bu dee ci limu ñi fi mokkal xam-xam ñi fi mokkal alquranu karim ñi fi mokkal alquranu karim toll nañ ci maanaam juróom fukk ñi fi génne itam am certificat bari nañu ba chaque année daanaka mën nga ne dañ koy am ren ji am nañ lu tolloog huit personnes yoo xam ne dañ ko war a def ñu ngi ñaan yàlla suñu borom defal leen ci ak réussite totale allah comme daara ji ci loolu la nekk loolu mooy ab liggéeyam foofu la toll ba léegi waaye daara ji liggéey bi mu ngi koy amal ànd ko sëriñ daara yi ma wax léegi ak maanaam ñi nga xam ne ñoo leen ndax ku ne xam na ne lii ñu wax ku koy def day laaj nga am personne boo xam ne bu qualifié la ngir defal la lool yàlla defal nañu ko nit ñi fi nekk qualifié nañu ngir def loolu boo xam ne danga ko koo mën a def daara ji nag lii muy def ak li ngeen fi gis lépp mi ngi koy defee ci daara ji ngeen gis mooy stage boobu nga xam ne maanaam ñaari étage la ak mbaar mi ci kaw da ci ca la ñuy jàngee ak kër gi jàkkaarloog moom daara ji da koo jël muy ab luyaas fa la ñuy jànge France kër gi ci pegg jàkka ji fa la jàngalekat yi nekk moom it ci daara ji la bokk waaye ku ne xam na ne ni muy dalee sëriñ daara bu nekk te ñi fi nekk xam ko mooy ne nga am kërug luyaas yombul te itam seer na seer goo xam ne mënta continuer daara ji dafa am benn maanaam mashru bu bees mooy dafa am benn projet bu bees te mooy dafa bëgg ba léegi mooy amal boppam te loolu nag jëfewul lépp ci loxo yàlla la nekk jaam bi amul lu dul bëgg ak maanaam feeñal ak bëggam li ci des mu bàyyi ko ci loxo yàlla jaam bu jëf yàlla la jëfal moo tax daara ji kër googu muy luyee mu dend moom daal daara ji dafa bëggoon bu ko yàlla dimbalee ak ku yàlla baaxal nga mën a def te yàlla tax mu ngi lay woo ci loolu bëgg na kër googu mu jënd ko moomal ko boppam seet nu ko modifié ba mu gën a dëppoog moom ndax mooy barab bi ko gën a jege te olof day wax ne gën a jege gën a yaay ak yeneen ak yeneen ba bu mu bëgg naa daal yaatal espace bi te itam résultat yi ngeen gis fii maanaam xale yi li ngeen gis ci njàngum alquran li ñu wane ci xam-xam ak lépp daara ji gën naa bëgg naa yaatal ab liggéeyam ndax ku ne xam na ne personnel bi fi nekk qualifié yi nañu te itam mën nañ lu raw li waaye nag da fekk espace bi ñu am lii rek la man la mën a jël kon daara ji bëgg naa yaatal espace am ak fu mu ko mën a amee képp koo xam ne nam mun naa defal yàlla mooy am ab pak wala kër wala lu mu doon mu bëgg koo defal wala sax da koy luyal ab barab daara ji soxla na ko ndax ci espace la ñuy wax da koo soxla waaye daara ji buy def lii ak boo amee espace it tey am ñum ko àndal ñam ko àndal ña ca gën ña ca ña ca gën a jege mooy parents d'élèves yi nga xam ne ñoo ñoom séq liggéey bi ndax dañoo am suñu benn maam da daan wax ne ci suñu waxu saalum ga naan maanaam néeg bu nekk ñax ma ko jege koy xëdd mooy ne mbir mu nekk ña ko séq ñooñee ñoo ci gën a yay keneen ku ca ñëw da leen caa wàlliyaan kon ñun daara ji bu ñuy soxla dara parent d'élèves yi la ñuy a woo ndax ñoom ñun bu ñuy jàngale ak ñoom la ñuy ak ñun loole lépp dañ ko war a dañu war a xam ne la ñuy jël di ko joxe weer wu nekk loolee nekkul ak fay waaye dafa nekk loo xam ne mooy minimum li ci mënta ñàkk la ca des lépp képp ko bëgg a defal yàlla moo xam li doon wax léegi ci wàllu azaka walla ci wàllu maanaam waqf na ko def ci daara ji ak barab yu mel nii yelloo nañ ko te mi ngi ciy woo parents d'élèves yi nañ ko jàppale bu baax ci loolu rawatina nag daara ji mi ngi soññ bu baax parents d'élèves yi ci li nga xam ne moom mooy li mënta ñàkk nga xam ne farata te mooy liñ ko war a jox sag weer loolu moom mënta ñàkk ndax daara amul lenn lu extraordinaire maanaam daara ma amul xar baax yu ko mën a dundal daara ña fa nekk ay nit lañ fa muy dëkkee mooy fi nit ñiy dëkkee kenn ku nekk la ngay jànkuwante sa kër moom la daara ji wante kon yooyu noonu ñuy jël xale yi ci la ñu dund bu ñuy fay courant ci lañ koy fay bu ñuy fay kër yi ñuy fay maanaam luye ci lañ koy fay personnel bi nga xam ne mooy liggéey bu ñu leen di fay ci lañ leen di fay kon yow jur wi nga xam ne da ñëw andi sa doom ci daara ji daara ji wax la ne la kat man kat samay charte ni may doxee la ca gën a néew mooy chaque weer danga may andil nangam lu mu yàgg-yàgg. lu sëriñ bi ñàkk a ñàkk a wax boo demee ba maanaam sàggante wala nga yaagaandaay na nga yëg ne yaa ngi lor ay say moromu jullit ndax bu yàlla na tere bu daara ji xëyoon amuñu añ wala amuñu reer yow boobaa yow ci nga bokk ndax ñañeen ñeneen ña ñëw lañ andi moom lañ leen di dundalee ngir bu keneen ñëwee yow nag boo toogee weer u waxuma nga teg ca weer tegaat cay weer kon bu boobaa yaa ngi lor daara ji boo ko yëgee boo ko yëgul kon daara ji ngi woo parents d'élèves yi njëkk ci nag li nga xam ne moom la ñu chartoo ak moom nañ koy matal la ca des nag yàlla suñu borom day wax dégg nga ma maa alal muhsinina min sabil loola moom kuy def te yàlla tax yàlla lay fay waaye li nga xam ne da nga koo war ak daara ji muy ab charte moom danga nga koo war a matal dafa nekk loo xam ne dafa obligatoire kon daara ji mi ngi ciy soññaat bu baax parents de yi kon loolu mooy kàddu daara ji daara ji mi ngi woo ci li mu jublu mooy ne li may wax léegi ne dañoo fas yéene yaatal liggéey bi mooy amaat yeneen barab ndax daara ji ci ñu yàgg ñu koo jàmbat day bëri ñu fiy ñëw di laaj ndax am nañu ay jigéen wala amuñu ko kon daara ji bëgg na léegi mu sos amal barab boppam boo xam ne dafay tàggat xale yu jigéen ñi comme ni mu di leen jàngal comme ni muy def nii ndax ñoom ci njaboot gi lañ bokk te ñoo gën a yay ñu al ummu madrasatun boo ko préparé rek dafa mel ni aw xeet ndax moom mooy yar ëllëg mooy yar xale yi daara ji loolu yitteem la te mi ngi ciy woo parents d'élèves yëpp waaye di ci woo ñi teew ñëpp di ci woo mbooleem jullit ndax euh, dara jafewul dara jafewul jaami yàlla yi rek ñoo fi nekk te yàlla rek mooy def waaye nag yéene bu amee te dëggu yàlla suñu borom moo cay teg loxoom ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te yàlla borom bi di ko nettali ci suratu tawba keroog xaswatu tabuk ji xare boo xam ne bu métti la woon ngir ne jubluwaay bi sori na waxtu wi tàng na maanaam fi mu fekk jullit ñi ci ay tartar wala ci manqué teg dund ci bekooru ci wàllu am jafe woon na yonent bi wooleen waaye booba ni ñu ko suñu borom nettalee ñett fa nekkoon te ñett ñooñu mooy masa nekk mbirum jullit ñi ñett ñooñu ñoo daje fii mooy ñenn ñoo xam ne ñoom de lii ñuy laaj lottu nañ ci lottu nañ ci li ko waral mooy lottu nañ ci seen jëmm bu fekkee jëmm la laaj wala dañoo feebar wala dañoo ñàkk yàlla nee na ñooñu la xaraja alayhim keneen ki mooy koo xam ne moom am na yéene ji lool ba ma ngay wut di ko wuti waaye lottu na ci koo kii yàlla suñu borom nee na mokkee ñoo yam keneen ki nga xam ne moom du ca génn mooy ki nga xam ne lii ñuy wax moom am na ko man na ko waaye nag dafa lànk ngir dafa gënal boppam ki sàkku ngërëmul yàlla yàlla suñu borom nee na kookee moom moo am benn yoon boo xam ne yàlla suñu borom da ko ci topp te mooy fi mu waxee maanaam laysa ala duafai wala ala almarda wala ala alladina laa yajiduna maa yunfiquuna xarajun ida nasaxu lillahi wa rasuli daane wa ma ala almuxsinina min sabil daane ولا على الذين إذا ما أتاك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه إلى آخر الآية إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء ñooñu rek moo fi nekk kon daara ji ñooñu lay woo ngir ñu jàppale ko ci lii mu jëm te muy feddaliwaat parents yi ne leen kóllëre gi doxoon seen digg ak moom ci ne dana taxaw taxawaay bi war di leen di ci bàyyi xel yàlla boromam waaye di leen ci bàyyi xel yéen ci confiance bi ngeen am ci moom waaye di ci bàyyi xel tout tànk yi ne ñoo war a màgg ci loolu la fas yéene di dox te mi ngi leen ci woo ngeen dolli koo taxawu dolli koo dimbale wasalaamualeykum wa rahmatullah ñi ngi ci tëj rek ñi ngi sant mbooloo mi fi teew ñëpp di sant dëkkandoo yi surtout dëkkandoo yi ñu ngi leen di sant bu baax te di jéggalu mbooleem yi nga xam ne yu ñu yëgla ak yu ñu yëgut te ñu koy tiisoo ci mbirum daara ji ñu ngi koy jéggalu wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu jërëjëf sëñ Abdoulahat Si kàddu yi am na solo lool xam naa dafa mel ne waxtu wi xaw naa xat lool su ko defee dañuy woo sëñ Ahmad Fadil njaay mu yëkkati kàddu yoo xam ne kaddu soññee la yu tënku rek xam naa incha allahu taala sëñ Ahmad Fadil Ndiaye tafaddal mashkura